voilà donc wàllum wujje moom la ñuy waxtaanee tey comme ni ñu ko annoncé woon ci ndoxteelu émission bi mu Mounass ñu ñu bàyyi la nga développé. waaw xadi euh, euh, ñuy sant yàlla rek ba ñu ñëpp biñ fi dajaloo waat tey ji euh, ba mën a waxtaan tey ci wujje ndax nag wujje du. du dara lu dul bokk wërsëg la rek mm-hmm. bokk wërsëg la méttiwul c'est pas évident nekk loo xamante ni tamit lu lu yomb la nekkul loo xamante ni lu lu metti la waaw parce que tamit li tax ma naan loolu mooy xel moo koy def mm-hmm. xel moo koy def te bu fekkee ni eh, sa xel bu amee loo xamante ni dafa xaw a manqué tuuti rek sa sa wàllu wujje dafay dafay tëgg tembe mm-hmm. eh, ni nga ko war a defee doo ko doo ko defee noonu parce que loolu yëpp dafa rogalaat ci joŋe rek ndax boo boo joŋee eh, war nga mën a xam naka ngay naka ngay defee ba mën a nekk ak sa wujju ngeen bokk ndey bokk baay mm-hmm. loolu loolu loolu c'est très important mm-hmm. c'est très important Euh, loolu daal laa fas ni ñu développé ci waaw waaw voilà donc est-ce que euh, souvent da ngay dégg euh, ay ay xale yu jigéen ñuy wax ni que ñoom seen sëy li ko tas mooy wujje bi nga xamante ne moom la seen gore di def par rapport à ñoom jëndal na la chambre coucher bu weex sa mhm. bu bees sa wu sa sa goro ne moom également doomam daf ko ko war a jëndal et cetera mu mel ni que wujje eh, yamatul sax ci ñi nga xamante ni ñoo ñoom ñoo bokk jëkkër. Mhm. loolu mooy suñu yaay rek boo amee goro boo xam ne dafa am béjjënu dënn boot ko du yomb boot ko du yomb eh, ndax magum jëmm boo nekkee ak sa doom mu lay teral. Eh, mm-hmm. li nga xamante ne mi ngi ko mi ngi. moom moo waral seen diggante ci entre diggante ndey ak doom mm-hmm. bu fekkee ni ki nga xamante ni mooy doom mi ngi koy matala rek sant yàlla mm-hmm. ndax am na ñoo xam ne dañ leen di yàkkal boolu ceeb jox ko goro bi mu lekk ba suur mën doomam bu ñëwee mën na ne ko suuru ma mm-hmm. mu nekk ca ñiddaatu boolee di ñëdd te ku ñu jox bool bu ñu mut nga lekk ba suur aw ñëdd du la tax a suur kon nañ sant yàlla bu baax delloo si xel yi tax comme ñoom suñu yaay lañ ñu xam naka la ñuy defee ñoom mm-hmm. euh, te te li li ci gën a metti sax mooy entre ñi nga xamante ni mooy ñaari wujju yi aaw ak ñaareel aaw ñaareel boo xoolee presque amul ndax ku ci nekk rek sa aaw bopp nga sa biir nekk mhm. ku ci nekk sa aaw bopp nga kon jarul na rafet xadi ñaawoo bi ñu nekkee dafa dafa war a jeex mhm. dafa war a jeex parce que da gis koo xamante ni dañ maa takkal wujju ma nekk ak sama xarit mu daal di ñëw ni ma yow sa wujj bi taseeg naa moom fii sa wujj bi moo bon sa wujj bi nangam nangam mais est-ce que man man na jotul yedd ma man lan laay ñàkkee fayda naïf ba may nit ki accès mu ñëw ci man naan ma xadi nii wala xadi naa ne su ma xamee ne lii su ma la ko wanee day metti lii su ma ko wanee faatu ko du ko neex mais jarul ma la koy wan kon donc dañu war a ànd bokk ndey ak baay wujj il faut nga am xel muus boo muusul doo ci génn ngay defal sa bopp am sa jonge boo xam ne day fees tell ci sa biir néeg ñu defaleen est-ce que neex na ci jigéen nga nekkoon sa unique jabaru jëkkër mu jékki-jékki rek nga xëy un bonjour nga ñu ñu ne lekk ndëkk man noo da ngay da nga koy bokk ak beneen jigéen mhm. tey mu am ñaari fan suba nga am ñaar en fait lépp lu sa jëkkër lu mu la doon defal yow kese man noo daf koy daf koy diviser pour euh, ñaar mhm. moom mooy bokk wërsëg bi euh, loolu nga wax noonu mooy bokk wërsëg bi neexul mhm. neexul déggoo ñu naan euh, wujj parce que dafa metti mm. euh, wujju dafa metti am na ñoo xamante ne nag mais euh, dinañ dinañ am seen xel dina dal ba dinañ xam ne euh, sama jëkkër ji kat leer na ma sa jëkkër buy takk jabar war nga xam kii góoru ñaari jabar la wala ko góoru benn jabar la mm. ba ba psychologiquement nga war ko préparer mm-hmm. waru la bett waaye fii ñi fii takk naan la que du ma mës a takk d'habitude ñoom ñooy ñoom ñooy takk ñi naan ñi naan dinaa takk du ñuy takk mais ñi nga xamante ne tout le temps mm-hmm. dañu naan seen jabar ci yow laay yem d'habitude ñoom ñooy takk ñoom ñooy ñooy faral di takk parce que bu fekkee ne yow tey da nga genre kët si nga rek di wan ni jigéen ñi leneen carrément yow rek laa bëgg yow rek yaa fi nekk mm. or que loolu ah, amul da ngay xëy benn jour rek ñu takkal la wujju bu ñu la ah. takkalee wujju nga am problème moom melul noonu moom moom mention spéciale ah, mais non genre am dafa jantal te xale jigéen yi ñoo bëgg ko jantal yaa ngi dégg da ngay ñëw gis benn genre kët si nga defe ne kii pare na ko takk deuxième fois parewu ko yaa ngi dégg kon na rafet. ku laax ne <laughs> yow ku laax mi gis nga yow mi yow te ngaa wax sa émission te bàyyi ma man li <laughs> laa xam xam man li nekk ci man ah yow xamoo li nekk ci man kat. dama xam ne doo ko def déet. am <laughs> ma ne yow daal waxal say wax te bàyyi ma. bon coach quand même même menace même bu xamul man xam naa et man je sais que yow. waaw euh, euh, ma ne ma ne. yéen ñaañ ñi dama ne. bu dee yow rek vraiment. mag pétrole xale pétrole dama ne te ngeen a wax seen wax te bàyyi ma man. mais ko si yow takk ko. non mais oh, am fit nga yow na nañu nag ndaama tuuti am fit rek. gàtt bëri solo. voilà am fit rek. Euh, bëggoon naa aussi. souligner juste deux choses parce que léegi boo xoolee. Mhm. la plupart du temps euh, liy indi euh, problème ci ci mbirum wujje bi déjà dafay commencer ci seen borom kër. Mhm. parce que borom kër gi aussi dina nekk ak euh, soxnaam muy aawam dina takk te du du ko ko wax. Mhm. day dem ba ci jour bi ne ko dañ may dañ may takkal jabar tey sama nijaay moom ko takkal wala alors que c'est quasiment faux avant nga koy def mënoon nga ci waxtaan ak sa. sa euh, sa jabar sa mhm. aaw ba pare moom mu jox ngeen échangeante mhm. mu xam li ngay def en plus de cela aussi euh, di nga di di nga takk te doo ko xam nan laa ko li nga waraloo ak sa aaw yëpp doo ko mhm. def maanaam les moyen ne sont pas là déjà yow mettre ko dans de bonnes conditions après nga bëgg ñëw aussi jël ñaareel teg ko ci kawam loolu aussi la plupart du temps dafay indi frustration si côté aaw bi du nangu loolu la fekk que jëkkëram du ko defal après mu dem takki ñaareel souvent aussi problème bi foofu lay jógee Euh, góor boobu xadi euh, faatu kooku mënul mënul booram ndax góor soo mënee sa boor euh, jabar dafa nekk loo xamante ne kenn du ko mat dañ koy mën mm-hmm. jabar kenn du ko mat dañ koy mën soo ko mënul rek jarul nga koy def lépp nag da koy préparer civiquement da nga koy préparer mënuma ay ci yow muy neex bu digg rek picc bi di may wokk muy toj muy neex lool nga naan ma kaa faat dafa salte faatu saw liiri nanga ma ki nanga faatu nii sa kër bu tasee yaa ko tas faatu bu bonee sax nëbb ko sa ñaareel soo ayee sa première femme bu donte sa aawo da sa ñaareel dafa bon ngir yàlla yonent bi nëbb ko sa jabar bu ko xam mais dangay dangay aye fee ñëw sa aaw mel ni faatu di jaar jaag gi def tout blanc néeg bi armal néeg bi ba mu mel na mu war a mel rek nga commencé di lëre di di di wax rek naan sama aaw bi sama ñaar ba ma fa demee toppatoo ma nii la mel naa la mel léegi nag yow bu fekkee sa xel dafa gàtt yow déjà léegi yow boo xëyee ci biir kër gi yaa ngi ko koy xoole mm-hmm. Mm. dañ ko gaarawaale bu dee dangaa nekk mm, euh, jeeg bu manqué ba mel ni ñetti dërëm bu dërëm ba réer mais loolu du un peu faute jigéen ñi c'est-à-dire ku góor ki moom euh, li ko arrangé moom lay seet te concurrence bi nga xamante ne moom la ñaari jabar yi di def wala ñeent yi loolu daf koy arrangé parce que ku nekk yaa ngi xëcc sa boor di wan sa jëkkër que man maa gën a mën kii di di def concurrence boo xamante ne finalement jëkkër ji kese moom moo ciy bénéficié wu de ce fait bu nekkee góor bu matadi mhm. bu nekkee ci kii ne ko kee defaluma lii dafa lii dafa lii mhm. yow nga yokk sa sa boor ci côté boor bu nga yaakaar ni sa morom matalu ko bu demee ci keneen ki également ne ko kii lii wëkk lii bu ko defee ngeen ngeen nekke noonu moom mu mhm. ciy bénéfice yow waaw léegi mais kan moo tas kër gi kër gi bu tas moom moo tas kër gi gis nga góor bu weex elles sont coupables un peu mhm, ah, góor bu weex moo mën a yore kër mais bu fekkee dangaa naïf faible lool noo yor kër parce que léegi xale yi mën na yor nañ seen i arsenal seen jàjj yoo xam xamante yor seen jur góor xoolal manote yi ñu jël dañ lay manote rek ne la papa maa aye tey ayewoo mhm. man damaa bëgg xale bu jigéen bay ay ay loo nañu bàyyi jël ay gi féetale ko ci seen bopp ñoom kese ñu ne ñoom kese ñooy aye bañ leen jigéen day aye jigéen dafay aye hmm? yaa fi waxoon ma de ab <laughs> policier xanaa léegi ay manodi daal moom. dégg noonu xaaral man manodi yaa ngi fi am pagaay bi jeex ay policier ngeen ku ko bëgg rek xam naa boutique dama ne yaay boo ma woowee ma jënd la <laughs> xanaa ay policier ngeen léegi. mën na nekk jigéen boo gis policier la ci biir. jigéen ñi elles sont un peu fautives tamit. Ah. Euh, parce que. bu fekkee yow jullit nga. Mhm. ngay sëyeeg jullit à tout moment war nga sooraale que mën nañu la fëgg ne la wujj ñëw. c'est vrai góor dañu koy bokk. Mhm. jigéen dafa war a def loolu ci xelam. que mhm. góor dañu koy bokk. donc heure bu bu wujj ñëwee nga jël ko ak sérénité ak calme. nga kenn neewu la nga uuf ko def ko sa rakk wala quoi que ce soit de ce genre mais nga continuer mel ni nga meloon ak. sa jëkkër sax yaa fay jaay boo ko uuful. sax yow yaa perte mais même boo ko uful nga continuer mel ak sa jëkkër ni nga ni nga ni nga meloon comme je l'ai non seulement euh, góor dañ koy bokk mais dañu toll ci jamono joo xamante ne xale yu jigéen yi dañu bëgg homme marié mm-hmm. boo fi naree bañ di wujjee finalement da ngay da ngay sonal sa bopp et tendance bi dafay wane ni que góor ñi instant bi dañuy nef ay ay jabar mm-hmm. dañuy nef euh, mm-hmm. mariage jigéen bu nekk loolu nga bën a war a bëgg sax ñu nef la ndax nag fi nga nekkee jeune dëgg nekk xale soo ma sañoon bu may am wujj sama aas bi nga ma koy takkale ngay sol tubay may subal sol tubay mais soo bàyyee ba sama doom am vingt nga dem takk xale bu am vingt ans sa sa kër bu tàkkoo bu taa taa sa kër bu tàkkee yaa ko parce que sa doom boobaa day wujj ak ak moroomam ci biir kër gi jabar dañ koy ñef mm-hmm. góor ñi dañoo war a takk mm-hmm. lu ñu takk doyul mm-hmm. nañu ubbi porte yi laa porte est grande ouverte pour ñu takk ay jabar sama yaay jurul sama mag pour benn jabar moom kese. Euh, dañ war takkal ñeenti sa message j'espère que sa jëkkër nekkul di seetaan télé. non non mën na takk. man ubbil naa ko buntu yi dama ndiir ma ndiir faa booy boo bëggee takk takkal. mais bu ma soxoree dama ciy ñaaw rek bu bëggee amee envie takk jamer jabar day takk rek l'essentiel na nga gàcce ma rek yow. say mënat ak say bàgg bu dara pare bu ci dara manqué ne lépp mat. mais lenn lu manqué ci yow rek bu la leeree ni da ngaa manqué bu mel ni ñetti dërëm bu dërëm ba réer jàppal ne dañ lay takkal wujju mhm. te mënuñu ko fee bañ parce que suñu religion la yàlla moo ko bëgg yonent bi moo ko bëgg suñ ko bañee dañuy sonn waaw da ñu ko fi mhm. ne daa dee léegi xol baa jeex parce que li fale ngay iñaane sa moroom jéeg mu dugg ci sëy bi rek sa xol bi day lekk di lekk ba des tuuti mu jékki-jékki wadd ñu ne léegi la fi romboon dee na mhm. na rafet adduna jeex na de dafa war a rafet te danoo war a ubbi suñu raqi ay buntu ñu dem sëyi mais soo nee carrément man du ma takk wala beneen wujju benn jeeg du ma lenn rek laa xamante ne d'accord naa si bëgguma benn jigéen boo xamante ne moom ah, dan lay takkal di dëkk ak sa wujju ci biir kër gi parce que xam nga tax day indi histoire rek. Mm-hmm. et xale yi sax defe naa ne muus nañ muus goo xamante ni nangootuñu ko du ma dëkk ak sama wujju na dëkk ndar ma dëkk France heure ñuy yootante yootante dafa dàq te day jur jàmm. Mm-hmm. mais fale ka ma su ma pànkee rek di la di la jéem a colaas rek day andi problème ndax da ngay gis koo xamante ni amul dara sax ma dëkk ak ci biir kër gi sa néeg a ngi nii sama néeg a ngi nii wujju nga ma dem jënd sama banaana bu 200 jënd sama benn canette. mu jaral ma ma ñàkk ba manqué dem ci dibitari ba fartaate ay yaxu ji bi yëpp ba mu xëyee nag jóg ko sama buntu néeg mm-hmm. su may bale loolu yëpp si xeetu jonge la rek jonge stratégie la. dafa loolu provocation loolu du jonge loolu provocation la. non non non non xam nga yow nag. mais est-ce que provocation bokkul ci jóge. non non non non non non non loolu provocation la provocation day indi problème ci ci diggante ñaari jabar nga tey yaa aaye ànd ak sa jëkkër ngeen dem jënd dibi ñoo tekk yax yi nga ñoo tekk sa buntu ki eh, ki wujju. waaw loolu wujju ci yoonam. waaw ma ne waxuloo jël loolu. ah nit ñi da maandu non non non. yaa yaa ngi def sa yaa ngi def sa reer sa biir kër boo paree yow yaa ngi teg say mbalit sa buntu kër sa buntu néeg mais soo xëyee am nga droit bale woo sax bon ni ko kaay jël nangam ak nangam ak nga bale boo ñëwee fekk fa ay karet ak ay ñompam banaan. waaw manoon bi sax dama koy sànni waale ci buntu bi yàq ko. non utiliser bu dem boutique mais ma xam ne ci man la ko jëlee. xam nga yow sànq ba tey yaa ngi joxe dégg nga ay conseil yu baax. yu neex mais mu nekk nii nag. yaa ngi dévier. parce que xam nga tax nga dévier mooy que booy conseiller provocation là ça loolu c'est dangereux provocation parce que provocation mooy lan. yow nga dem ànd ak sa kii ba pare dem lekk seen yax yi ngeen ñëw te ko sa bu bu sa. buntu kër non pas dem lekk sa biir néeg laa wax. waaw waaye boo paree surtout que dafa am. nit day su jigéen day am sutura. Mhm. góor day am euh, euh, sutura. Mhm. lekk ngeen ba ci guddi et sax am na sax loolu sax benn premièrement xam nga fan fan la góor bi euh, amee ñàkkee fulla mhm. parce que loolu ñàkk fulla la. nga am ñaari jabar bu guddee nga jël kenn ki dem lekk dibi. nga bàyyi ñeneen ñi yoo nga bàyyi keneen ki du lekk li bi. mais ki ay écoute. non non non non jëndal dibi bi yéen ñaa ñoom ngeen lekk. non mais bu guddee boo di tëdd na nga dem yóbbu ak euh, ki aye. mais ku ci mariage mariage ay sox bàyyi leen di bokk tamit. non non non fii mënul yem pour pas provoquer lu. ma ne déet non non non. mënul yem boo ayee moom. defar sa jinjeer bu far ngay defar. man góor gu baax bu nekk xam nga da nga koy. xoo oh, dimbale ci jinjeer jinjeer euh, xoolal nga indi jinjeeru booy def yëpp. na ko loo def loolu jinjeer yàq nga ko dégg ngeen dégg ngeen jinjeer lay laaj jinjeer gi sax lan la ñuy wax. mun naa si ñu ngi lay kër bëgg mos a jikko. ah ok tey moom d'accord maa ngi yow. moom ñu ngi lay ah? a baax bàyyi la nga tàggatoo. waaw ñu ñuy sant rek di waxaat jéggi ñuy gën a brosse làmmiñ waxoon naa ko fi dama leen di rappeler ndax day yomb. <laughs> xam nga fu mu nekk nii tey lii nii. ah yéen a ngi

ñaari Guy Charles ñoo ngi ñoo ngi bu baax a baax di delloo ñëpp njukkal di wax rek ah, ñu ngi jéggalu ci kàddu yi lépp lu ci safaanu ci ñun ñii la rek mhm. ah, di tuub tey jéggalu di wax rek ñu nañu gën góor góorgóorlu veewaat ci suñu doom yi rek ndax ndax ndax doom yàlla mi la ko jox rek moom moo xam li tax mu jox la ko nañu gën a veewaat ci suñu doom yi di gën a surveiller amul benn parent boo xamante ni da ngay jur sa doom di ko bàyyi ci mbedd mi pour ñu jël ko euh, parce que doom dafa sori ci ci yaay amul kenn koo xam ne jur nga sa doom rek bañ ko sa doom lu la mënti def rek doom doom rek lay mën munti doon kon nañuy veillé ci doom